yow dama dama damay ànd ak yow loolu laa lay wax nii ca xam loolu laa ko wax man waxuñu ma sax damay ànd ak kenn dañu ma ne ñëwal laas bi mais laas bi dañu ko loolu la ko voilà léegi yow léegi yow loolu yow yow yow léegi yow yónni kenn jox

yomb na sax

bon

Thank you.